salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu euh, ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di baalu àq ñëpp di leen wax déwénati di jiital nuyoo suñu sëriñ sëriñ Muntaxa Mbàkke mu Cheikh Mahamadul Bachir ak képp ku nga ak ñuy nuyu tarixa yëpp. waa di wax ne rek nañu nañuy nañuy nañuy nañuy bàyyante xel bu baax a baax parce que àq doomu aadama comme ni ñu koy waxee toujours. dafa xaw dafa xaw a dafa xaw a am doole tuuti ci doomu aadama ndax suñ borom dafay wax ne toppewu ma kenn dara diggante doomu aadama yi ak seen i àq mooy moo yóbbu nit ñi safara kon nañuy bàyyi xel bu baax a baax a baax euh, nit ñi surtout rawatina ñun ñi nga xam ne ñoo bokk sëñ Tuubaa ñuy jaar ci yoon wi nga xam ne fa la ñu sëriñ Tuubaa jaarale woon yoon siraatu mustaqiim ndax sëñ bi moom ñëpp xam ne ku ne xam ne ne da doon jëlale ndax bu doon toppaatee it bu fekkoon day topp nit ñi dina topp tubaab bi te topp leen lépp lu ko tubaab bi def da leen ko jégal lépp lu nga xamante si ni lu ko metti wala mu jël lépp teg ko ci suuf kon ñu ngi lancé benn message ci président Macky Sall di ko nuyu bu baax di ko wax ne na bàyyi xel wax boobu bu baax a baax parce que lu am solo la na am réew moom loolu rek loolu rek moo koy jëmale kanam waaye du yenn yi mënul jamale kanam am réew. di wax di ko wax tamit mu mu mu mu bàyyi xel jeunesse bi bu baax a baax a baax euh, bàyyi xel tamit jeune marabout yi nga xam ne. ñoo bokk ci tarixa yëpp moo xam waa kër Sëñ Tuubaa yi la moo xam waa kër El Hadj Malick la parce que ñooñu ëllëg dañu war a yilif lu bëree baree baree bëri ci Sénégal na bàyyi xel ñooñu bu baax a baax a baax